أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala mu ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ñoo ngi jéem sunu kemtalaayil kàttan fàttalante ak yéen ci cheikh bi sax wax na ne nañ ko def ci dee waaye dañu tànnoon amaalu ahlul janna jëf yi nga xam ne ku ko taxawee ci kaw suuf ba faatu manees na la cee dugal aljanna lu tax pour xemmem loo sunu bopp xemmem loo mbokk jullit yi jëf yooyu di dugalaate aljanna pour ñu jéem koo baril ndax yàlla subhanahu wa taala boole ñu ci waa aljanna waaye balaa may dugg ci tomb bi rek dinaa leen soññu cinq minutes dafa am loo xam ne war nañ cee jóg te mooy tardé waxtaan bi biñ ko waxee ba léegi maa ngi koy préparé tey dama amoon journée yendu une heure laa ko dagg ñëw toog kër ga di leen xaar ba ci cinq heures ngeen woo ma man leen depuis deux heures maa leen di xaar cinq heures ba léegi maa ngi fi toog six heures et quelque jot na ñu wax fi juróomi minute mu daal du am benn njëriñ te caaxaankat yi bi ñuy ñëw ci yoon bi yépp ñi gis nañ ñëpp ñi nga xam ne ci ay caaxaan la nekk ñoom seen rendez-vous du tardé ñun ñi nga xam ne ci dëggu yàlla la nekk ñuy tardé loolu lii dañ cee yàgg tardé tardé dañ cee yàgg tardé fu nekk di tardé war nañ cee jóg war nañu fexe ñu xam ne saxaaba yi ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam day li njëkkoon dindi ci seen bopp mooy tardé moo tax yàlla bi mu leen di jox julli dane inna salaat kaanat alal mu'miniin kitaaban mawquut julli sax ci boppam farata la waaye dañ ko utal waxtu kon feek ñu ngi tardeel suñu bopp dañuy nax suñu bopp rek foog ñu jëm a changé mooy lu ñu wax ñu def ko suñ nee 4 heures 4 heures la ñëpp xam ne lii 4 heures la suñ nee 5 heures 5 heures la ñëpp xam ne lii 5 heures la suñ nee 6 heures 6 heures la ñëpp xam ne 6 heures la fi mu nekk nii maa ngi waroon waxtaane 45 tomb fadaayilu amal ahlil janna waaye xam ngeen ne fii nii 45 yi kenn mënu ko fay waxtaan wala xanaa ma coppati ko coppati ko coppati ko wala loolu rek moo fi nekk de 45 yi moom mënu fee jeex waaye dinaa jéem sama kem kàttan benn benn ba buñ ci amee ñett sax dina baax insha allah l'essentiel que yàlla nanu yàlla nangul suñu xamee jëf yooyu ku ko def dugg aljanna góor ak jigéen ñu jéem cee ñu jéem ko def tomb bi njëkk mooy al iman wal amal mooy ngëm ak jëf jaa fi alquran al karim xam ngeen ne téere bi di alquran li ci nekk ci iman yëpp ci ay aaya dafa ànd ak amal moo tax mu ne ñëw na ci alquran al iman ka ka aham asbaab al musila ila al janna ngëm nekk benn tomb boo xam ne dafa am importance ci luy yóbbu nit aljanna moom ngëm ay aaya yu dul jeex ci alquran saa yu ñu jàngee inna allazina amanu wa amil lañ ci teg amal wa amilu saalihaat kaanat lahum jannatul firdawsi nuzula yàlla ne na ñi gëm te xam ngeen imaan boobu lu muy teg mooy at tasdiq bi ma jaana bihi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam min indillah ngëm day dugal nit aljanna waaye ban ngëm ak lan ngay gëm ba dugg aljanna loolu jara xam la alquran moom bi mu la nee gëmal pour nga dugg aljanna bàyyi wala noonu ci ay loxoy kese daf laa wax lan ngay gëm ba pare leeral la ngëm googu ñaata kenn la mu ne la al iman billah al imaanu bil malaayika al imaanu bil rusul al imaanu bil kutub al imaanu bil yowmil aaxir al imaanu bil qadar yi mooy arkaanul imaan ginnaaw ba mu la fir firalee luy ngëm mu indi la keno yi nga xam nan la ñuy gëmee yàlla ba yàlla moom ngay jaamu doo ko dendalee kenn wala lenn nga koy bokkaale tey ñu bari ci dëkk bi da ngay dégg ñu ne gëm nañ xam ngeen chrétiens yi gëm nañ yahudi gëm nañ bokkaalekat yi gëm nañ animistes yi gëm nañ franc-maçon yi gëm nañ mulhid yi gëm nañ waaye ngëm gi lu tax mu wuute ngëm jullit yi parce que jullit yi lu ñu gëm ñoom gëmuñu ko te jullit yi lu ñu gëm moom mooy ngëm yàlla mi nga xam ne moo sàkk mooy moom ngëm googu nag ginnaaw ba nga ko defee nga jàng ko càmbar ko ba xam li nga war a gëm du doy ngëm kese du doy de bu dee ci Sénégal moom di nga dégg yenn saa yi nit ne la gënoo maa gëm gënoo maa gëm wala mu ne la ngëm li nga gëm laa gëm wala yenn saa yi sa nga dégg ñu ne la ngëm amul solo xool rek am solo maanaam loolu nag moom du ay texte loolu du texte de lii ñii di wax fii ci mbedd yi jarta dégg ngëm dafa am waaye ngëm kese googu du doy foog mu ànd ak jëf mooy al amal loolu nga gëm foog nga wane ne moom laa gëm maa ngi di ko def gëm nga yàlla julli jot na yàlla moomu nga gëmoon nee na la jógal julli lu fi des da ngay julli saa yoo tëddee ba waxtu yu paase gëmatuloo yàlla tabaraka wa taala wala sa ngëm googu nga gëm ngëm gu yaafuus la ngëm gu yambare la bu dee ci sama mbokk jigéen yi ku la ci woone la man gëm naa yàlla xoolal ay jëfam rek melokaanam ni mel benn jigéen dafa dem France ñu takk ko ci benn dëkk ci dëkk islaam yi mu dem defi réception am wala lune de mel am France comme ni ngeen ko xamee nit day takk jabar dem Mbuur dem Saly toog fa weekend bi ba mu jeex wala mu toog fa une semaine daal di gàddu seetam indi ñaan ko foo demoon ñu naan mu naan sali laa demoon di bii di bii ñoom moom demuñu woon sali waaye ñoom Europe lañ dem dem France biñ demee nekk ci seen hôtel alhamdulilah sax ndax ndaw si ba muy dem jëkkëram la àndal waaye comme ay julli lañ ñu dégg nodd waa ji ak ndaw si ne ah nañ julli ci de ñu daal di génn seen hôtel ñëw ba jàkk ci waa ji jubal ci place góor ñi ndaw si jugal ci place yu jigéen ñi bi mu ñëwee mu teg saakam ubbi saak bi génne kaala gi faxas comme ni sénégalais yi di def faxas kaala gi ba mu faxasu mu takk ci bopp bi daal di kàbbar ñu julli ba pare benn tubaab bu jigéen boo xam ne bu mu tubee sax yàggul daal di ñëw ba ci moom daal di koy jox loxo nuyu ko niyu islam ne ko noo tudd mu ne ko Khadija mu ne ko Khadija dama bëgg a waxtaan ak yow ndaw si taxaw di ko déglu mu ne ko damaa gis bi nga duggee ci jàkka ji nga ubbi sa saak génn ci kaala faxas ko yëlëb ko lemmi ko daal di koy teg si kaw bopp bi doog a julli mu ne ko waaw mu ne ko benn question rek laa am kaala gi pour saak bi la woon wala pour bopp bi ndaw si ne teg mu ne ko kaala gi pour saak bi la wala bopp bi ndaw si ne teg mu ne ko maa ngi lay laaj ndax jullit nga wala doo jullit ndaw si ne ko jullit laa mu ne ko est-ce que wax nga ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah mu ne waaw mu ne waxaat ko wérul waxaat ko mu ne boo ko waxoon sa kol gi du dugg sa biir saag bi ci sa bopp bi nga koy takk ba ba ngay dee wax na dëgg loolu mooy man gëm naa yàlla te yàlla li mu wax doo ko def yàlla jaralul la dara ah seetaatal sa ngëm moo tax li ëpp lu ñuy wax ay waxi kese la suñu waxee yàlla daf ñuy xaar ci jëf qaalat al arab amanna qaalat al arab amanna la la leen yàlla tontu mbokk yi arab ya ba ñu ñëwee ci yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ñu ne ko ñun de gëm nan la la leen yàlla tontu bàyyiwul wan dem fi nu toog lay alquran wàcc ne leen gëmu leen du dëkk qul lam tu'minu gëmu leen wax leen ñun de dugg nañ ci islaam ay jullit lañ waaye imaan bi nekkagul ci seeni biir xol moo tax ngëm du ay waxi kese ngëm ay jëf la moo koy dëggal maa waqara fi lqalb wa saddaqahu l amal الإيمان بالقلب يزداد وينقص ما وقر في القلب وصدقه الأمل ngëm ci xol lay nekk ngëm ci xol lay nekk moo tax yàlla ne rabbukum aalam bi maa fi nufusikum man dong man yàlla maa xam ne gëm ngeen wala gëmu leen waaye ngëm googu day yokk day wàññeeku lan moo koy yokk jëf lan moo koy wàññ yaafuus fii mu nekk nii koo gis mu dàq laa dem jàkk dàq laa naafila dàq laa woor dàq laa zikr moo la ëpp ngëm ci yàlla tabaraka wa taala moo la gën a dëgër koo gis mu tayal ci jaamu yàlla yi koo gis mu yaafus ci jaamu yàlla yi jàppal ne waa ji amul ngëm ngëmam du dëkk kon benn ci jëf yi nga xam ne ku ko def soo faatoo allahu subhanahu wa taala mën na laa dugal aljanna yooyu mbokk jullit yi bi ci njëkk mooy al iman wal amal mooy ngëm ak jëf ay aaya yu bari ñëw na ci wallazina amanu wa amilu salihat ulaika ashabul janna hum fiha xaalidun aaya yu bare bari di ngeen jàng sunu borom subhanahu wa taala di ci wax ci wàllu ngëm ndax lan moom mooy tomb bu njëkk ci jëf ñi nit ñi nga xam ne ëllëg dañuy dugg aljanna ngëm googu wala yàlla moomu ñuy gëm wa min ahammi taarifatiha te mooy alxaw ragal yàlla googu li ci ëpp ci li ñuy préparé mooy ni ko imaam ali waxoon mooy alxawfu min aljalil wal amalu biltanzil walqanaatu bilqalil wal istidaad li yawmi rahil mbokk yi ngëm yàlla tabaraka wa taala su fekkee yàlla soññ nañu ne bu ñu gëmee jëf suñu jëfee am ragal yàlla ragal yàlla googu suñu buggee xam dëgg-dëgg moom mooy lan mooy nga yemale ko fépp foo nekk doo ragal yàlla rek parce que nit ñaa ngi fi déedéet saa yoo ragalee yàlla ndax nit ñaa ngi fi ragalatoo yàlla nit ñi nga ragal ki ragal yàlla fépp la koy yemale ndax yonent bi dane ittaqillah haysu ma kunt ragalal yàlla foo mën a nekk foo mën a nekk sa biir nekk ci mbedd mi ci jàkka ji fa ngay liggéeyee li ngay liggéey sax da nga cee war a ragal yàlla waroo cee xool kenn yàlla rek parce que xam nga ne allahu subhanahu wa taala bisa ngi ñëw di nga wéet ak moom kon moom yàlla moomu subhanahu wa taala moom ngay ragal doo ragal kenn mooy alxawfu min aljalil waaye wala amalu bi tanzil foog nga jëfe li yàlla wàcce man gëm naa yàlla te li yàlla lim la wax defal doo ko def gëmuloo ngëm ak jëf ñooy ànd moo tax dafa bokk ci jëfi waa aljanna ñoom waa aljanna bi ñuy wax ne dugg nañ aljanna lan moo leen fa dugal jëf bañ leen ne dugg leen aljanna lan lañ leen ci tegal bi ma aslaftum fil ayaamil xaaliya lii de yéena ko defoon waaye kañ ngeen ko defoon mooy ca bés ya paase bi ma aslaftum fil ayaamil xaaliya waa safara buñ diggee safara tamit xam ngeen lu leen fa dugal mooy ay jëf waa aljanna ay jëf ñoo leen yóbbu aljanna waa safara ay jëf ñoo leen fa yóbbu kon moo tax kenn ku nekk ci ñun war ngaa xool li ngay jëf bokk na ci ginnaaw al amalu bi tanzil al xawfu min al jalil wal amalu bi tanzil wal qanaatu bil qalil mbokk julit li la yàlla jox na la doy bokk na ci tey li tax mënuñoo am diine mooy ñàkk a doylu li ñu yàlla jox doylu dañuy concours pour nekk ay millionnaire di daw ci ginnaaw àdduna xalaatuñu lu dagan xalaatuñu lu xaraam xalaatuñu am am bu lew xalaatuñu am am bu dagan mooy daal nu nu def ba am rek nan am déedéet ab jullit lu dagan daf ko yiiteel gis nga boroom xam-xam yi dañuy wax ne lekk lu araam day dem ba feeñ ci sax sa dund day feeñ ci sa jabar feeñ ci say doom feeñ ci say xar sax yi nga yar xar yi nga yar bu fekkee li ngeen di li nga leen di jox dafa araam xar yi sax duñ la déggal waxuma laa ginaar yi ci biir kër gi kenn ci biir kër gi du la déggal moo tax gis nga li ñuy jooy lu ëpp ci ñun ñun la démb islam bu nit daan xëy jabaram day ànd ak moom ba ci buntu kër gi ne ko ittaqillaha fiina ragalal yàlla ci ñun ñun mën nañoo muñ xiif waaye mënuñoo muñ safara lépp looy indi ci kër gi na dagan ah loolu mooy diine mooy alqanaatu bil qalil doylul li la yàlla may waaye wal istidaad li yawmi rahil mooy tomb bi cheikh bi doon wax ne ñu waroon ko def waxtaan mooy nit day préparé dee saxaaba ba mu ñëwee ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko yaa rasulallah mata saa yonente bi yowmal xiyaam kañ la mu ne ko loo ko préparé loo préparé la yowmal xiyaam yowmal xiyaam lu lu nuy dégg rek te tëdd di nelaw naan yowmal xiyaam de xam naa bisi yowmal xiyaam xam naa bisi yowmal xiyaam ah bis déedéet dañ koy waajal waaye yowmal xiyaam lan lañ koy waajale ndax ay yére da ngay jënd ay valise di jënd ay ganila ah wala ay costume wala ay grand boubou loolu lañ koy préparé déedéet ndax yooyu du dem alaxira yooyu fi nga koy bàyyi alaxira dañ koy waajal ci jaamu yàlla di jóg guddi di julli lu bare bari di sijoor sijoor yu bari di waar waar yu bari di saraxe lu bari di tudd yàlla lu bari di jàngal Qur'an lu bari noonu la ñuy waajale alaxira mbokk yi alaxira kenn du ko du lu ndaw rek lu nuy lu nuy dégg nii déedéet gis nga saxaaba yi ba ñu gëmee àllaaxira tëddatuñu nelaw am na ci ñoo xam ne ñeent fukki at tëddatuñ ci kaw lal kenn fekkatu leen guddi ci kaw lal ñuy nelaw ñun ñu gën a baax ci ñun ñooy yeewu seen kër te ne bëgg nañ àllaaxira kenn ci saxaaba yi wala ci taabiin yi doom ji da ko ne waa papa man de bi ma juddoo ci kër gi ba léegi waxuma la déglu sax waaye suuf si ci boppam ko bàyyi man de ba ma juddoo ci kër gi ba léegi saa yu guddi jotee du ma gis nga tëdd mu ne ko doom damaa bëri bakkaar ku bëri bakkaar du nelaw guddi xale bi ci kër gi la juddoo ba ba muy màgg ba ba muy mesure mu fekk baayam du nelaw guddi lu mu wëlbateeku wëlbateeku wala lu mu jóg jóg day fekk papa mu ngi taxaw wala mu ngi rukkoo wala mu ngi si jot na waa paf yow musuma laa gis nga nelaw guddi mu ne ko doom damaa bëri bakkaar ku bëri bakkaar du nelaw guddi kon alaaxira mbokk yi istidaad boobu ñuy dégg préparation boobu du nekk ay waxu kese waaye ay jëf la laaj ci jaamu yàlla ci li la yàlla sant ci li mu mën a doon fexeel nga nekk ci ba tey bokk na ci euh, jëf yooyu nga xam ne dina dugal doomu aadama aljanna mooy al ixlaas sellal ginnaaw imaan ak amal al ixlaas sellal gis nga bépp liggéey booy liggéey bu sellul ngir yàlla du dem suñ jàngee téere hadis riyaadu saalihin buntu bi al imam an-nawawi ubbee téere ba mooy buntu ixlaas buntu ixlaas la ko ubbee lu tax ndax doomu aadama ay jaamu yàllam yëpp bu sellulee yàlla soxlawu ko wa ma umiru illa li yabudullah muxlisina lahu diin yàlla nee na li ma leen sant mooy jaamu gi na ngeen ko sellal ngir man bu ko sàmba moom bu ko demba moom bu ko bu ko bu ko bu ko na sell al ixlaas li ngay def na sell na wér yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na annaasu kulluhum halka ñëpp alku nañ illa al aamiluun ba mu des ñiy jëf ñi jëf rek ñoo alkool mu ne wal aamiluuna kulluhum halka illa al wal aamiluun kulluhum halka illa al aalimuun ñiy jëf alku nañ ba mu des ñi am xam-xam ci li ñuy jëf nit buy jëf te amu ci xam-xam baaxul nga julli ba pare ñu ne la julli nga nga ni waaw ñu ne la li nga julli lan moo ci farata lan moo ci sunna lan moo ci mustahab lan moo ci mandub lan moo ci makruh lan moo ci haram ah wax dëgg yàlla man de kabar naa rukoo naa sujoon naa rek li nga def yëpp loo ci xam nga ne ma xaw ma ci dara amul lu njëriñ day xam li ngay def lii lan la moo tax yonent bi ne ñëpp alku nañ ba mu des ñi nga xam ne li ñuy def xam nañ lii lan la mu ne ñooñu tamit alku nañ wal aamiluuna kulluhum halka illa al muxlisin mu ne ñooñu alku nañ ba mu des ñiy sellal ndax am na ñoo xam ne ñuy jëf te yàlla taxul allazina yunfiquna amwaalahum riyaa annaas am na ñoo xam ne dañuy joxe seen alal sax ngir ngistal am na ñoo xam dañuy julli sax ngir ngistal am na ñoo xam dañuy saraxe ngir ngistal ñii dañ jaamu yàlla goo xam ne yàlla taxul yàlla du ko jël xam nga yonent bi lu mu tëje hadis bi mu ne wal muxlisuuna ala xatarin azim ñii sellal ñoom ñoo ngi ci danger ñii sellal rëcc ñu de ñu ngi ci danger feet dugg ñu bàmmeel ak seen ixlaas boobu rëccuñ jàngeen hadis bi ñett ñi jiitu safara yonent bi nee na ñett ñii la ki doon jihaat ci yoon yàlla ba dee ki doon joxe alalam ba dee ak ki doon jàng alxuraan ñett ñi la yonent bi wax ñoo jiitu safara ki doon jihaat bi ko yàlla woowee ci kanamam ne ko safara nga jëm mu ne man yàlla ak li ma def man ma doon yor sama fas yor sama jaasi di xeex ci yoon yàlla ba ñu rey ma yàlla mu ne ko yaa mën a fen yow nga doon xeex pour ñu ne jàmbaar nga xeexoo woon ngir yàlla fii nga doon xeex pour ñu ne jàmbaar nga jeex na wax nañ ko amatu looloo fay lu ñu la fay keneen ki loolu la ko yàlla wax da nga doon joxe sa alal pour ñu ne da ngaa baax keneen ki lan lañ ko wax da nga doon neexal baat sa jàng pour ñu ne sa baat neex na yàlla taxul woon aca yéen ñett ñëpp safara kon ngeke mbir yi ay sew sewa ngi ci fokk mu sell looloo tax imaam ali bi muy xeex ak waa ji ba dóor ko jaasi jaaseem naaw ali xëj toog ci waa ji daanu ali toog ci dënn bi bu koo rendi waa ji daal di tëf li imaam ali imaam ali daal di jóg saaba yi yuuxu lu tax reyoo ko lu tax reyoo ko mu ne leen bu ma ko rendee dootul nekk ngir yàlla ngir tuflit bi lay nekk ndax bi ma tuflee mer naa ba gisatuma ko su ma ko reyal rek ngir tuflit bi la nekk te bëgguma koo rey ngir tuflit dama ko bëgg a rey ngir yàlla ah kon jaamu yàlla gi yéen samay mbokk na nekk ngir yàlla subhanahu wa taala waaye na am ixlaas gis ngeen dama doon wax benn oustaz ci sunu ustaas yi ma ne ko man benn aaya alxuraan rek moo ma faj ba ma ko jàngee ba léegi dara jommalatuma ci kaw suuf mu ne ma ustaas ban aaya la ma ne ko yàlla dafa joxoñ sahabatul qur sahabatul kiram ñi doon ànd ak yonent ñoom aboubacar omar ousmane ali bilal hamza ñoom ñooñu noonu nga xam ne ñooy xayru naas ñooñu la yàlla dut baaraam ci quran ne leen minkum man yuridu dunia am na ci yéen ñoo xam ne li tax ñu toog ci wetu yu àdduna yonent bi àdduna rek moo tax waaye man yàlla taxuma te yéen ñoo fi gën kon sunu jaamu yàlla bi nañ ko sellal jaamu yàlla bu ko daralal na am ixlaas lépp na yàlla tax lépp looy def bul ci xool ñoom ma sàmba bul ci xool ñoom ma demba xoolal yàlla kese kese kese kese soo bëggee dugg aljanna ñetteel mooy taatullahi tabaraka wa taala wa taatu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam jàngeen yàlla ne wa man yuti illah wa rasulahu yudxiluhu jannatin tajri min taati al anhar topp yàlla topp yonent day tax nga dugg aljanna yonent bi nee na kullu ummati yadxuluna aljanna illa man aba waaw kon topp yonent day tax nga dugg aljanna mbokk yi da ngeen a bëgg dugg aljanna ana ñu bëgg dugg aljanna fi ana ñu ah yëkkati baaraam dong doyul de yëkkati baaraam dong du doy ñun ñëpp loolu lañ bëgg waaye du doy foo ñu jaar fa yonent bi jaaroon ñu topp yonent bi ay nit a ngi nii ñu dugg safara ëllëg xam ngeen lu tax ñu dugg ña nga yuuxu ci alquran naan yaa waylata laytani ittaxastu maa rasuli sabila yaa waylata laytani lam attaxis fulanan xalila ay waay bu ma xamoon ma jaar ci yoonu yonent bi bu ma xamoon yonent bi nekk sama copain waaye tey ñoom diw laa jàppoon ay fans club ay copain ñooñu laa jàppoon tey ñu ngi nii ñoo ma alak ah ndeke kon mbokk jullit yi topp yonent bi day tax nga dugg aljanna beneen ñeenteelu tomb buy dugalil aljanna mooy xusnul xulq mooy rafet jikko yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na aksuru maa yudxilu nnaas aljanna taqwallah taqwallah wa xusnul xulq li ëpp ëllëg ci liy dugal nit aljanna mooy ragal yàlla ak jikko ju rafet gis nga démb maa ngi téléchargé benn xissa boo xam ne mu ngi fii ci sama portable benn cheikh bu tudd Nabil Iwadi moo ko def ci benn góor gu nekkoon France benn góor gu nekkoon France di jaay bitik pour wax leen jikko ju rafet tey li ëpp ci jullit yi li tax munuñu convaincre nit ñi munuñu convaincre sax seeni doom waxuma la ak seeni jabar waxuma la ak seeni dëkkandoo mooy seen jikko yu ñaaw te ab jullit jikkoom dafa war rafet ab jullit jikkoom dafa war rafet góor googu Turki la dëkk dafa jógee Turki ñëw France nekk commerçant di jaay ci benn bitik ci immeuble bi bitig bi nekk ci kaw am na fa benn xale boo xam ne benn famille boo xam ne ay juif lañ ci famille bi am na benn xale bu ndaw bu góor bu tudd Jack Jack xale bi saa yu xëyee moom mooy ñëw jël si ration famille boobu pour ñu ndékki waaye saa yu ñëw ci bitig bi bu ko góor gi joxee ration bi ba pare xale bi dina sàcc sokola dem góor googu di ab julit nekk commerçant xam xale bi day sàcc mu bàyyi ko ci biir boo mu am ay at waxuma la benn ñaari fande waxuma la weer ay at saa yu xale bi ñëwee dana sàcc sokola dem mu defale paa bi xamu ko paa bi gis ko ndeke góor gi gis na ko bu yàgg da ko cee bàyyi comme xale la mu bàyyi ko noonu ba benn bis góor gi jox ko lim koy jox ba pare xale bi dem sàccu sokola paa bi ne ko Jacques xale bi daal def demi tour mu ne ko tey sàccu sokola di rek xale bi tiit kon yow yaa ngi ma doon gis parce que maa ngi la doon gis kay si xale bi tiit mu ne waa léegi nag mbaa dooma booleeg sama famille mbaa dooma boole police baa bi ne ko ah benn charte day mooy tax duma ko wax sa seen waa kër duma la boole ji police benn charte mu ne ban charte la mu ne nga nangul ma bàyyi nga sàcc dootoo sàccati abadan mu ne ko waatal naa la ci yàlla dootuma sàccati bàyyi naa sàcc ko bàyyi nga sàcc mu ne wax góor gi ne ko man tamit assureel naa la saa yoo jëndatee ma jox la sokola bi nga doon jël xale bi kontaan bëgg paa bi paa bi assureel ko ko xale bi saa yu jëndee paa bi jox ko sokola ba xale bi màgg paa bi nekk ak moom noonu xam ngeen xale bi France jeunes yi ñëpp dañoo am problème parce que lu tax Europe ndaw yi am problème mooy amuñu référence suñu amee problème amuñu fu ñuy dellu parce que ku ci mesure rek lu la neex ngay def même sa parent sax dafa gëm ne da ngaa mesure lu la neex da ngay def xale bi nag yàlla xiir ko saa yu amee problème ci ci ci góor gi lay dellu si bu ñëwee rek wax ay problème am wax wax wax ba sonn góor gi ne ko xaaral ma ñëw dugg ci biir magasin bi ubbi benn valise génn ci benn mbuus ñëw toog génn benn livre ne ko Jack luy sa problème mu wax paa bi bu ubbee trois pages rek ne ko sa problème a ngi nii daal di koy liiral problème bi daal di réglé wu mu fóon paa bi daw réglé loolu quelque temps mu ñëwaat paa amaat naa problème de paa bi delluwaat ci magasin bi génne valise bi génne mbuus mi génne téere bi ne ko lan la mu wax mu liir affaire bi réglé wu bis paa bi feebar ñëw ko hôpital paa bi daal di gaañu jag bi mu yëgee ne paa bi gaañu na mu am problème bu rëy rëy rëy rëy rëy lu tax amatul ku muy wax ay problème am mu koy réglé mu dem jaale ji bi mu ñëwee jaale ji kër góor gi ndeysaan triste moom sax la affaire bi gën a jàpp ak doomi góor gi ñooñu ne ko sunu papa boole woon nañu ak yow ah mu ne waaw ah sunu papa lu mu wax mu ne daf la fee may benn cadeau ñu dem rek yenu valise bi dafa gis valise bi rek kontaan ndax lan ah ndax valise bi moo denc téere bi koy réglal problème am bi mu gisee valise bi rek kontaan ñu ubbi valise bi jox ko livre bi rek mu taf ko ci dënn bi daw mu dem denc téere bi quelque temps mu am problème léegi nag mu ubbi ko gis arabe la mënul lire arabe muy wër ci biir France ba mu dajeeg benn waaye bu dëkk bu dëkkoon Tunisie benn tunisien boo xam ne dégg na français dégg na arabe mu ñëw ne ko yow dégg nga français mu ne waaw mu ne mën nga lire lii mu ne waaw mu ne liiral ma dama am problème. waaye ne ko luy sa problème mu wax waaye daal di ubbi ñetti paas rek liiral ko affaire bi rek la wu mu ne waa eh attends yéen téere bi téere dëmm la wala téere jinne la wala téere téere lan la wala téere masi la li ban téere la mu ne ko kii mooy alquran mooy téere jullit ñi mu ne ah xaw ma lan la de mais téere bi moom mooy rek la àdduna bi moom ndax man saa yu ma amee problème téere bi rek la ko waa léegi téere bi nan lay def ba ba ba ba ba dugg ci mu ne ko da ngay nekk jullit mu ne nan laay nekk jullit mu ne lu yomb na trop fii nga taxaw waxal ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah mbokk yi jag daa di wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah xam ngeen jag bi mu waxee ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah après lu ci tegu ci Europe lu mu fa def ah lan la def Afrique jag ay million million million personnes la jag dugal ci islam vidéo baa ngi fii ay alaaf ay européen mu ñëw Afrique ay million personnes mu dugal leen ci islam ba yaayam sax bi mu génnee àdduna après yaayam dafa tuub fekk ci ko Jacques dafa changé turam bi mu tuddee xam nga nan la tuddee boppam jaadullah jaadullah la tuddee boppam nekk daa yi islam boo xam ne mujj gi dëkk yëpp lay wàcc di tuubloo ay nit xale boobu fan la jëlee islam ba mën a tuubloo ay millions millions millions personnes ci islam kan moo liggéey loolu ah commerçant ba waaye commerçant bi lan la jëflanteeg moom mooy ci jikko ju rafet foo sunu jikko yi ñu defar ko ay nit a ngi fi bañ sunna ay nit a ngi fi bañ diine ay jullit rek a tax ay jullit ah ay nit a ngi fi yoo xam ne dañoo bañ islam ay jullit ñoo tax jullit ñoo ñu bañ lislaam ab jullit dafa war a rafet jikko nañ delluwaat ci taarixu islam yonente alayhi salaatu wasalaam ñaata nit la dugal ci lislaam ñaata nit te ci jikkoom bu rafet rek loola tax borom xam-xam bi doonoon wax bu ñuy wax mu ne kuunu lana du'aatu saamitiin mu ne daawa bu leen yaakaar ne takk rajo rek di wax la déedéet nit mën na noppi sax di woote nit mën na noppi di woote xoolal xale bi nga xam ne ci koñ bi ci jàkka ji ci kër gi moog soxnaam wala moog dëkkandoo yi ñëpp référence la ci moom xale bi saa yu génnee ci koñ bi paa yëpp bëgg koo jur amoon na benn xale bu góor sunu koñ su demee jàkk fajar ndeysaan boobu sunna commencé gul tas benn paa rek mooy dund sunna ca koñ ba nee na moom bu àndeek paa bi ñu dem jàkka ba pare bu ñëwee ñu paa bi da koy day téye ci loxoom fajar ñoom ñaar ñu toog paa bi ne ko waaw kër yi yëpp xanaa duñu ay jullit mu ne ko ah kay mu ne ko waaw lu tax ñi ñëpp duñ dem jàkk xoolal sama waa kër paa bi ne ko paa bi daraan jóge fii di dox tànkam ba alfala bu kolobaan di julli ji jumaa ay temps paa bi ne ko tey gis nga tey sa yaay ak sa papa bu ñu la doon jaay damay jaay sama kër jaay sama xar yi sama doom yi sax bu ma mu leen jaay ma jaay leen ma jënd la yow waaw ndax ni mu bëggee xale bu góor boobu loolu du léegi de loolu yàgg na nee na ñoom ñaar rek ñoo doon dund ci koñ boobu mais xoolal paa boobu li muy wax xale bu góor boobu ne ko yow bu ñu la doon jaay tey seen waa kër bu ñu la doon jaay man maa lay jënd yow. lu tax ndax xale boobu baax gi mu baax rafet gi mu rafet jikko jullit dafa war a rafet jikko gars yi dañuy sabate sax kaña kaña xam ngeen kaña am na gunaas ah bëri na fi. pourtant kaña sénégalais la de wala du sénégalais ah d'accord ngeen sénégalais la wala du sénégalais sénégalais la wala yéen yéen a ko gën a nekk ay sénégalais citoyen la comme yéen waaye lu tax du génn bëccëg loolu mooy question bi lu tax du génn bëccëg su ko ñu baaxul ndax yàq rek moo tax bu ñu ko gisee bëccëg rek ay cours ñoo koy topp feek deewul bopp bi tasul duñ ko bàyyi jikko ju bon baaxul jikko jullit jikkoom dafa war a baax jullit dafa war a defaru yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ko yàlla subhaanahu wa taala di tagg ci alquran lan la ko yàlla tagge jikko bu rafet taggewu ko Quraysh nga taggewu ko Abdul Mutalib mooy sa maam taggewu ko Amina mooy sa yaay Abdallah mooy sa pap Màkka nga juddoo déedéet da ko ne wa innaka laala xuluqin azim fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta fazzan galiza alqalb lan faddu min hawlik allahu akbar cent vingt quatre mille sahaaba ñoo waroon wër yonent bi di lekke këram di naane këram di reere këram ñii di fa fanaan ah yonent bi mus cee wax kenn xam mu ci wax kenn da nga bëri wax noppil mu ci wax kenn yow xanaa amoo foo dem yow da nga ma lakkal ñoom ñëpp daf leen uuf yërëm leen ba yàlla ne ko ci sama yërmande nga leen uufee ñoom ñëpp boo nekkoon ku tar kuy ñàngal di changé kanam kuy kuy kon gars yi duñ la wër xoolal gars yi dañoo bëgg yonent bi lu raw lu ñu bëgg seen ndey ak seen baay lu tax jikko bu rafet jikko bu rafet li raw lu ñu bëgg seen ndey ak seen baay bu ñu toogee ak ñoom duñu bëgg a jóg xaaris day toog ba ci yàgg ndeysaan mu jooy yonti na ko lan la mu ne ko man xam naa ne am naa problème rek yonti na ko luy sa problème mu ne xam naa ne ëllëg ni ma la bëggee nii dootuma la gisati même man bu may dugg aljanna yow ngay dugg aljanna xam naa yow ci aljanna yu kawee ngay nekk dootuma la mën a gis ndeysaan mu ne loolu rek moo tax nga jeex nii waaw loolu rek moo tax ma jeex ma wër rek sàkk sàkk su ma xëy rek sama bët jàkkaarloo ak yow mu ne loolu rek moo tax nga jeex sàkk nii. na waaw aaya bi daal di wàcc wa man yuti illah wa rasulahu fa ulaika ma alladina anama allahu alayhim min annabiyin wa siddiqin wa suhdaa wa salihin wa xasuna ulaika rafiqa yonent bi nee na saxaaba yi nee na kontaanuñu ci aaya boobu lu raw keroog ni ñu kontaane almar u ma aman ahabba koo bëgg rek ëllëg yowmal qiyaam yàlla boole la ak moom kon nanu rafetal sunu jikko góor ak jigéen góor ak jigéen képp kuy dund diine sa jikko dafa war a rafet jikko nag du lu ñuy jàpp di ko sang di ko bomb ay saabu di ko diw mileen wala di ko diw kaarite ndax mu nooy wala di ko diw diw di ko peñe da ngay fexe sa comportement ne comportement islamique benn borom xam-xam bu mag dafay doon ñi mu doon yar di leen jàngal mu tudd al imam hasanul banna dafa ne gaayam yi mu doon jàngal da ngeen di yor jikko garab su ngeen buggee baax ñu ne amu ne mel leen ne garab ñu ne ko luy loolu mu ne garab boo ko dóoree xeer boo ñëwee ci garab mango nga dóor ko xeer moom lu mu lay jox mango la lay sànni allahu akbar nga ñëw ci garabu cerise dóor ko xeer mu ne la man man de xeer nga ma sànni waaye man xaaral ma jox la li ma yor daan lay sànni ay cerise allahu akbar jullit noonu lay mel idfa billati hiya ahsan fa iza allazi baynaka wa baynahu adawa ka annahu waliyun hamim wa ma yulaqaha illa allazina sabaru wa ma yulaqaha illa zu hazin azim gars yi dee leen fayonte ak lu rafet borom jikko bu rafet dafay fayonte lu baax moom du denc lu bon léeg-léeg nga dékku ne day dof dof lu bàyyi leen ma gën koo dof rek dof yi dañuy bëri waa ji kay buy dof dof lu yow niteel bul ko jaay dof kon bokk na ci jikko yooyu mbokk yi lii dugal nit aljanna mooy al axlaaq jikko ju rafet bokk na ci luy dugal nit aljanna yonent bi alayhi salaatu wasalaam soññ ñu ci bu baax mooy alqitaalu fi sabilillah jihaad ci yoonu yàlla alquran moo ñu nettali loolu inna allah ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna jihaad nag léeg-léeg nga wax ko gaa yi jàpp ne dañoo war a uti ay jaasi ci ñun sunu mafhumu jihaad jàpp nañ ne jihaad moom mooy xeex rek ah kay ci la bokk de boobu gaa yi naan amatul sax ci la bokk te mooy jël jaasi xeex waaye nag comme ñun fii nu nekk amuñu nu nu xeexal nuy jihaat ak sunu bakkan jihaat ak àdduna jihaat ak iblis muy seytaan jihaat ak sunu bànneexi bakkan bu sëri day wax ne an nafs ka tifl mu ne bakkan mu ngi mel ne xale bu ndaw am na ci ñun ñoo xam ne xoolal dañuy dund sunna de mais munoo fexe bañ yeewu fajar laa ilaha illallah fajar laa léegi sax nga gis ci benn jigéen bu la woo téléphone saas nga ne waaw mu ne man day diw jaaxal na ma diw day du yeewu fajar mu wax naa ba sonn ndeysaan te bu 11 heures jotee rek nga gis waa ji nag ak tubéy ji nag ak sikkim bi nag te du yeewu fajar jamais fajar nga gis ko ci jàkk ci waaw kooku xeexul ak bakkanam soo demee ba songu alquran ak sunna ne damay jaar fi yonent bi jaaroon est-ce que yonent bi mës na biddanti ba demul fajar jàkk war nga xeex sa bakkan waxuma la yow nga fa yeewu fajar waaye sa njaboot dama ànd ak benn mbokk barki démb loolu moo tax ñu war a def attention bu gaaw bu ba portable am xaw ma lu mu doon def rek portable bi daal di changé langue bi changé dem ci yeneen langue yu dul français du arabe du anglais mu koy jox ay nit ci mbooloo mi di ko jox ay nit kenn mënu ci dara ba benn booy ne ko indi booy bi daal di koy defaat arab na yow yow booy garaaw nga de booy bi ne ko waa léegi ma defaral la réveil bi waaw ne ban heure laa koy def mu ne ko def ko 6 heures rek ma xool ko ab sunit kilifa yow nga nekk ab sunit ne kilifa ci sunna ñu ne la sa réveil ban heure lañ koy def nga ni 6 heures ban heure la ñuy julli suba ah mbokk yi 6 heures 8 léegi yow 6 heures nga yow naa fi la nga uddi balaa ngay dem di jàpp di ñëwaat ñu ne asalaatu xayru mina nawm loo fi def ab sunnit war naa rus yeewu sax cinq heures et demi ab sunnit laa wax ab sunnit bu góor ak bu jigéen war ngeen a rus di yeewu laa wax cinq heures et demi fekkee sunna dëgg la ci yéen fekkee sunna dëgg la ci ñun war na noo rus di yeewu cinq heures et demi Ah! yàlla bu muy takk sahaaba yi lu mu wax kaanu ku may yeggali aaya bi kaanu qalilan min al-layli ma yahjaun loolu muy tekki tuuti lañ doon nelaw guddi beneen aaya allazina yabituuna li rabbihim sujjadan dañ doon fanaan di sujjóot bu bët set yow ngeen na nga yow 6 heures ma xool ko ndeysaan waxuma ko dara bàyyi ko ci biir ma xam ne kii day nax boppam day nax boppam day nax boppam am na yoo xam ne fii nu toll ni kenn waratuñ cee soññ ay julli guddi ay woor lundi ay woor jeudi woor ayaamul biir zikr askaaru saba askaarul masa ah góor ak jigéen li tax mënuñoo am imaan bu sax doxuful imaan la ñuy dëkk bis bu nekk mooy duñu tàggatu su ko gis mu ne uu temps yi dëkk bi aw sa waay aw ma imaan damaa rës di nga yàgg rës parce que batterie buy charge buy déchargé wu kenn du ko chargé fu mu jëm affaire bi du ay waxu kese dépassé nañ ni- niveau wax dépassé nañ ko jëf la affaire bi njëkkante la ëllëg fastabiqul xayraat wala loolu du alxuraan njëkkante leen lu baax falyatanafasil mutanafisuun dañuy njëkkante jaamu yàlla yi mbokk yi saaba yi noonu la ñu meloon dañ daan njëkkante lépp lu yonent bi wax lu baax ñu roy ci seen bopp waaye su fekkee dañu bëgg a bokk ci naafila guddi kon dañuy limité sunu sunu dox yi sunu wër yi da ngay dajeeg yenn saa yi benn bokk deux heures du matin muy lambar lambari ci mbedd yi ku tëdd deux heures nu muy naafila guddi ku tëdd deux heures nu muy yeewoo fajar benn waaye dafa langar langar yi ñoo ci benn paa ne ko damaa bëgg nga may ma sa doom bu jigéen paa bi ne ko dafa am sart luy sart bi mu ne jullit rek laa koy may jullit waaw mu jullit ah waaw loolu nga wax de paa bi ne ko jullit nga ah yow bis mu nekk maa yow ñooy bokk jàkka ji ne waa dëgg la kay ne ko instant bi ban heure la ñuy julli fajar ah ah oh ah saa wi fajar fajar ah gis nga ah nag yow mënu ma la may jabar ku xamul heure julli fajar ban heure la mu du ma la may jabar loolu buñ ko doon testé ci mbokk yu bëree bëri dinañ daanu parce que yitteelu leen waaw misaal ñu ne la ayaamul biit bii di ñëw ba yan jour lay dajal war nga ko programmer sa agenda war nga programmer sa agenda ayaamul biit dara du la raw nga woor woorloo sa soxna woorloo sa njaboot di organiser ak ñoom iftaar yu neex ndax ñu tàmm ko volontaire billahi wallahi taalaay gis naa xale yoo xam ne kër goo xam ne dimanche ci guddi xale yi dañuy yore pap suba lëndi la indi ma dem jëndi xëtt billahi wallahi wa gis naa ko waaw loolu mooy tax xale yi ëllëg ñu am batterie mbedd mi du leen yóbbu lan moo tax tey sunu doom yi sunu njaboot yi seytaane di leen këf c'est parce que amuñu formation bu dëgër mbokk yi tomb yi bëri na trop waaye maa ngi gàttal foofu ndax question yi ak yeneen yi ci aju ak yeneen mbokk yi nga xam ne ñoo fi nekk bëgg cee sànni kàddu di leen soññ programme yi di leen koy respecté di teel a ñëw dañuy teel a ñëw ci waxtaan yi dimanche ci ngoon kenn deful dara depuis 3 heures ba 5 heures ba 6 heures defuñu dara nu bàyyi télé yi bàyyi marché yi bàyyi théâtre yi jigéen ñi bàyyi film yi nga xam ne amuñu bopp amuñu geen maa ngi soññ borom kër yi nañu contrôler seen télé yi su ngeen buggee seen njaboot yi nekk ci sunna dañuy contrôler soxna yi contrôler télé yi contrôler kër gi wallaay ku ci deful ci ñoom ci ñun sa njaboot dina sànku caaxaan yi ci mbedd yi dina ko këf nga defa ne yaa ngi ci dara ëllëg nga dee yàlla laa lay boxa ñaak ñoom ñëpp dugal jahannama yaleen yàlla musal salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu
alhamdulilah kon li ñuy wax mbokk mi yal na yàlla fekk ñu. dëgg boo xoolee tomb yi fi jot a développé benn tomb bu nekk rek doyal na loolu lépp nag mi ngi soññi mi ngi ñu ñaax ci ñu góorgóorlu ci wàllu tàggatu commencé bi muy ubbee lan la njëkk a jot muy waxtu li nga waxoon nee na amoon na programme waaye ku bàyyi woon xel programme bi la nee na deux heures ba léegi mi ngi déglu ñëw fi cinq heures ba six heures xoolal ci waxtu ak borom subhanahu wa taala ci waxtu li mu ci wax kon nag mbir mi bëgg la rek waaye des na ak tàggu bëgg na lool sunna ci melokaan yére yi nangam mais ci wàllu tàggutu dafa des te liggéey bi li sa biir xol moo rafet ci biti war nañu góorgóorlu ba wàllu waxtu bu ñu nee cinq heures cinq heures nañu fa fekk parce que ñoo ko wax tey waxtaan yi ci la ñu defaroo de defaroo de formation yi bu nga xeeb parce que gis nga loolu ngay dégg lan la loolu lañ gëm yow li nga gëm na la jaral li nga gëm ci ngay defaroo parce que yii ci ngay mën a am yenn formation yi amoo jot dem jàngi jàngi weesu na ci amoo temps ci yii nga mën a defaroo kon saa su nekk na la jaral bu ñu nee programme am na bu wér amee rek waxtu woo moom bokk na ci ñi fay njëkk parce que tamit ay tuyaaba lay doon ci yow toogaay yi nu mu gën a bari rek tuyaaba lay doon ci yow kon foofu dañuy profité rek pour ñaax mbokk yi góor ñi ak jigéen ñi góorgóorlu programme bu ñu xasee ba teg mu ne parce que programme yi li tax mooy am na luñ yëg dañ koo soxla am na luñ bëgg moo tax ñu teg programme yi buñ ko tegee ba pare te duñ ñëw wala balaa noo ñëw ki amoon ñaari waxtu programme yi def bax ak bax si nu mu méttee gëstu def li nga def yëpp ñëw ci la waroon a bax si arbre ko gis deux ñaari waxtu wala ñetti waxtu am une heure de temps loolu métti la ci gëstu kon dañuy góorgóorlu vraiment waxtu bi bu ñu ko xasee wax nañu fi fekk ndax loolu mooy tax ëllëg nit ki sawar bu ñu ko sante programme mu ñëw ay programme boo xam ne da ngay wax nit ki mu def ay sacrifice yëpp ñëw toog di xaar te moom lañ waroon a xaar kon yooyu message la bu ñu prévitoo rek lancé ko bokk ñu gën ci góorgóorlu am na ñoo xam ne daanaka wax dëgg bi ñuy doog a ñëw ñu ngi doog a yegg si kon daanaka du mën a jëriñ ci waxtaan bi nit bu la jëriñ bu la jëriñ wax dëgg war ngay mën a góorgóorlu def ay sacrifice kon gis nga ci wàllu jikko feebar la buñ am bu yaatu te mënoo woote wu sunna ba pare ku jëflante yow rëccu mbokk yu bari fi ñu dolli sunna waaye ku jëflante ñoom rëccu duñ la wax sàmm ko loo leen jox ñu sàmm ko buñ la àbb duñ la delloo yooyu yëpp ay melokaan la nga xam ne ba ci kër yi ñu dëkk daanaka duñu boole ci dara parce que ci melokaan ñu mel la duñ bokk ci dara ci kër yi duñu yàq dara sax ba nga ñëw bokk ci li ñuy def tey buñ doon liggéey tey ci kër gi am na nga xam dañu woote wu sunna waaye ab bant duñ ko fa yëkkati jamonoy lekk daal ñu doon ñoo lekk pare dem kon yooyu dafay tuutal sunna day tax ñu xam sunna fekk ne yow la kon li islam jàngale nga xam ne yenn saa moo ñu jàngal ci wàllu jikko ci wàllu melokaan bi borom subhanahu wa taala tàggu ko ci jikko loolu nañ ci góorgóorlu tàggatu ci tey weesu ku nekk ci ñun war nga mën a tàggatu ba jikko yoo xam ne jikko yu gën lay doon ci wàllu jëflante kon ba nga dëkk kër ga ka ngay seqal ka nga dëkk ci benn bi fa ngay liggéeyee wan ko jikko ju rafet loolu rek mun nga ci daawan kon nit ku dën dañuy jox micro bi mbokk yi bu fekkee am na question jox ko saa mu am lu tontu xam nga tamit léegi nag bu fekkee ko amul tamit